أحببت رب العالمين مع الأمين والأمين وانخدى ذكره الأمين لك الكلي وجسدي ناديت ذا العرش العظيم بالحب مع در الناس ولياك نبي عزيم وسناني عنه سيدي نهى بتوحيد الله قلبي يا رب الملتحى لم يكن للياحات في سفري وبلدي إلا ياخد في سفر خلي واهي بدفر مستغنيا عني نافات بجنده في خلدي لم ينفعني مبارزه وفيدورا بباريزه إبليس لا يبارزه جند العزيز الهادي لم ينحوني من اعترت او من لي خال جرجف السلام عليكم بوك جولدي بوك طالبي واتا بو ماغ بو تيرد جيم الاسلام ليغي جيمل تي الاسلام بي jaare ko nag kër Xaadimal Mustafa mbokki réew mi ku seen jataay bii dégg woote bu teddi bii xam ni jëf ju rëy liggéeyal ko yàlla suñu borom bàyyi ju tollu lislaam woote nañ ko ki nag di ki nga xam ni ku dégg mu woote kenn du ni kenn du ni guléet woote jëm ci toolum lislaam woote jëfal yàlla jëf ju mag ku ne xam na ko ci beri daara alxuraan jàngal ay dongo ba nu ar fu ñu toog xam ni ñii jàngal na leen yar leen sunu jàmbaar joojee toog toogaayu Serigne Touba Cheikh mu Mountakha Bachir yàlla nañ fi ak téwér sunu jàmbaar jooju nag di Serigne Saliou moom Serigne Khadim Awa ko ku ne xam ko ci jàmbaar ku ne xam ko ci jëfal lislaam jëfal nag maamam Serigne Touba la mu bëggoon jëf yu mag yu rëy yooyee moom nag la fas yéene boole ba tey dajale ko taxawal néegub yàlla néegub yàlla ca Mbàkke barab ba nga xamee ni Serigne Bara ko sampoon toog fa ca ndigalul Serigne Touba waaye nag teg fa doomam leeram léppam Serigne Khadim Awa Ba yàlla nañ ko yàlla feer Serigne Khadim Serigne Salim nag ñëw wuutu ko toog ginnaawam la yar njaboot jàngal leen jubbanti leen gàgganti leen toog wuuf taalibe yi waral nag naal ba nga xamee ni Serigne Bara ñaanoon na ko naal ba nga xamee ni Serigne Khadim bàyyi woon na ko ginnaaw naan boobee la Serigne Saliou fas yéene àggale ànd koog mbokki julli ànd koog njaboot bi ànd koog ak taalibe yëpp di nag taxawal néegu yàlla di jumaa ju mag ju ñuy def ca pencum sëriñ Baara ca Mbàkke tax nag sëriñ bi bëgg nag ànd ak jullit yëpp ànd ak mbokki taalibe yëpp ca liggéey boobee nga xam ni ku ca feeñ dootoo na bu mukk waral nag bis bi ñu jàpp ko di tegum xeer moo xamee ni mooy tàmbali liggéey ba te xeer woowee la ñu jàpp samedi le 3 avril fu 10 heures jotee Serigne Saliou woo mbokk julit yëpp Serigne Saliou woo mbokk taalib bi yëpp Serigne woo am ni jàmm di ko woo nag réew mi yëpp Sénégal rawatina région de Louga département bu Kébémer arrondissement Ndande ak Sagata bàyyiwuñu kenn fépp ab jullit nekk di wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadu rasulullah Serigne Saliou woote na ànd ak yow ci liggéey bu rëy boobee am ak yow ci liggéey boobu nga xamee ni ëllëg ay njaboot dinañ fi romb ku ne dina wax ni sama baay na ci liggéey bi ku ne dina wax ni sama maam feeñoon na ci liggéey bi liggéey boobu nag la Serigne Saliou woote tabaxum jumaa ca Mbàkke biis bi nag ñu koy tàmbali ci tegum xeer waral sëriñ bëgg bokk jullit yi ku ne ñëw ca Mbàkke nag fekke tegum xeer moomu nga xamee ni jàpp nañ ko samedi le 3 avril tax nag ñu woo magi taalibe yépp woo mbokki jullit yëpp dañuy daal di nag kàddu gi jébbal taalubéeb Serigne Bara jébbal taalubéeb Serigne Khadim Awa Ba ndawam magam yitteem jëfam lépp Serigne Khadim Awa la ko jox ak Serigne Bara di nag alaaji ma jëy fal toogal njabootu Serigne Bara ci département bi ci région bi ak li ko wër yëpp moom la jébbal kàddu bi mu ñëw ci bis bu rëy bu màgg boobee ñuy waat ca Mbacké alaaji ma jëy Fall أعوذ بالله من الشيطان الرجيم السلام عليكم بوكي ماي دغلو مبوكي ني دغ ماغي ييكتي كادو تي كير بو سيل كير كليفا كيرن سيغ توبا بوكو ديغي نات سيرن بالا مباركي موم سيغ توبا لاغا خامنا سوسون نكو تي ديني ييكتي كو تي ديني موي لپ لوي نيغو يال لپ لوي طالبي askan yep mu wagnon len jëmale ci diine doomam jooje jëloon kàddoom ba mu jeex tàkk muy sëriñ xaadim awa ba mbàkke kenn ku nekk xamoon na nan la doon dundee ci diine ban kàddu la joxoon askan bi nan la yaatale woon diine nan la amee woon taalibe yi mais waa kër sëñ Tuubaa kër sëñ Baara nan la nekke woon ak moom man de man na maa lim lu yaatu lool ci sëñ Xaadim aw ba 1957 laa ànd ak moom ba ni mu wàcceeb liggéey ma ñëw tàqali ko benn yoon may taalibeem sëñ Fallou Mbàkke nam ma bëgg woon ma bëgg ko mu toppe ma ko ma topp ko di wéy ci ay ndigalam duñ tàqali ko benn jamono du Louga du Dakar du Touba ñaar fukki at yi ma def ci kàddu yu rafet yooyu jëm ci woote bu mag taxawal néegu yàlla fas yéene ko def nag fii ci Mbàkke ci Kébémer ci kër Serigne Khadim Awa Ba ànd ko ak Serigne Saliou mu Serigne Khadim ak njaboot gi yëpp gannaaw alaaji Madiaye Fall nag tubaarkàlla ñu jël kàddu gi jébbal alaaji Abdoul Aziz Diop di taalibe kër yi ku xam Serigne Saliou xam ko ci ginnaawam bu waxee nag waxaaleel na Serigne Alawa Gadiaga tubaarkàlla ak magi kër gi kon ba tey ci woote bi sànni le 3 avril fu 10 heures jotee la ñuy teg xeer wi ci kanam Serigne Saliou fii ci Mbàkke asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu bokki jullit yi bokki lislaam ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci turu Sëriñ Saliou Mbacke ak rakam yëpp ginnaaw nuyoo bi maa ngi wax ni Alawa Gadiaga su fi nekkoon tey jii damay bàyyi mu wax waaye dafa am gàllankoor loo xam ne dafa nekk Dakar moo tax mu ne soo demee ni ngeen xam ni njabootu Sëriñ Saliou fu ñuy wootee teewu bi lu ko métti nag waaye loolu la yàlla dogal ginnaaw bi ma sant yàlla sant yonent bi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag dama leen di xamal ni li ñuy woote yàlla rek la jëm ndax kenn wérante wu nii euh, sëriñ Saliou Mbacke euh, mooy ki remplacé sëñ Xaadim temat ko li li mu jëkk a def mooy jàngale ba noppi doog a ubbi jàkk almadaari xabral masaajid ba leen jàngale ay rakam ba ñëpp xam nañu war xam lépp moo doon lu gën a jublu ci néegu yàlla bi ko nga xam ne dañ koy matti sëkk daanaka li ma jéy wax doy na sëkk du ma am du ma cay wax doy na sëkk la ki des rakkam ju mat jim rak dana ko complété bu buñ ci accès li ma ciy xam ne mooy sëriñ Xaadim day wax na ni am na liggéey boo xamante ni daañ mu ko liggéey loo ca kanam su boobaa koo fekkee ci def gi nga dem bëree ci ko ba mu koy wax nag xaw woon lu tax mu di ko wax waaye toog naa ci kànd la mu toog àll ji lay toog sëñ Habib Diop yàlla toog mu ne Abdoulaye Sy ah am na liggéey bu rëy bu may war a liggéey ci département DMS bi boo fekk te defoo ba rëccu boobu nag xaw mu koy xaw ma lan la bi ñu yëkkatee jumaa ji nag xam naa ne kon ñi fi bàyyi mat nañu jàng nañu ba xam la war a xam lépp song nag yoonu yàlla nañ ko ña woon sax nañ ko war a defee di ko defee kon mooy liggéey boobu kon maa ngi woo ñëpp lu ci waay man benn dërëm ba milliard xeebuñu ko ndax liñ fi war a def daa bari jumaa ji ak la muy àndal lépp loolu ay milliards sax fi ñëw dañ ko ciy def maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf Serigne Abdoul Aziz Diop tubaarkàlla ci kàddu yu matale yooyu jëm ci liggéey bu mag bi nga xamee ni sunu jàmbar ji sumb na ko def ko bégal maamam ja sëriñ Touba def ko mottali yéenay Cheikh Mouhamadou Lamine Bara waaye nag def ko mottali naalub sëriñ xaadim awa ba bëgg a bégal nag sëriñ Muntaxa waaye bégal la magam xalifaam kilifaam sëriñ Moustapha moom Cheikh Sidi Mokhtar yàlla na fi ak téwër waral mu sumb nag liggéey bu mag bii nga xamee ni bëgg na Kébémer tund wi julli di kenn ku ci nekk fen ci ngir bañ a ténn mu liggéeyal yàlla ci toolu Serigne tubaa ku ca feeñ jotoon na tax nag ñuy jël kàddu jébbal taalubéeb Serigne Touba gëm yaakaar wóolu Serigne Touba ba mu jeex tàkk wala rek ci kër gi taalube ci kër gi alaaji yi Caam fàkkoordu bu yëkkatee kàddu wax ci turu diaspora bi yépp waaye wax ci turu kër sëriñ Touba ak taalube yi nga xamee ñoo nekk ci Kébémer alaaji Njaga Caam noo ngi sant yàlla bu baax julli ci yonent bi di sant Serigne Touba di sant sul jàmbaar ju mag ja muy Serigne Xaadim Awa doomi sëñ Baara Mbàkke mate ko lool bu sëñ Baara ak sëñ Tuubaa teewoon jataayam du changé fii la commencé ci réew mi di yar di jàngale dugg Afrique di yar di jàngale dugg Europe ak Amérique fépp fu mu mas a dem musta laaj intérêt bu jëm ci moom lu yar taalibe lu yar jaboot gi lu leen xamloo lu leen tax a nangoo liggéey lu leen tax a jàpp seenu jàmm rek moom la daan doxe bitim réew moom la daan wax ak comme ko mas a waxal ku ne jataay bu mu teew bu ne loola lañ fa daan déglu sëriñ bi nekkoon na jàmbaar joo xamante ni fu mu masaa nekk xalif général ci boppam la fay nekkal hmm. fu mu masaa nekk waa kër sëñ Abdou Aziz la fa nekk waaye yoonu murit lépp la fa nekk waaye umma islamique bi la fa daan nekkal <coughs> fii ci Sénégal la ko commencé woon comme ni ma ko njëkk a wax ñi mu yar 76 ba jamonoy tey jii maa ngi taxoo moom di taxoo njabootam hmm. waaye noo ngi ba mu fi bàyyi waa kër ñoo xam te doomam yii ak sëtam yii nee nañ tànn yoonam bi fépp koo xamante ni seen xaadim rëddoon na fa fukk sëriñ Saaliwu ak rakkam def nañ ko téeméer taxawal nay daara taxawali taalube yar leen jàngal leen kon sëñ Saaliwu lépp lu mu masa woote diine tax mu woote ko waaye intérêt bopp mu musu ko woote sëñ Saaliwu mi ngi woote néeg boo xamante ni néegu suñu borom na te jullit bu ne nag war na la waaye sant nañ yàlla bu baax ba ko sëtu sëñ baara bi woor doomu sëtu xaadim awa ba te li ko waroon lépp ci daara yi mu di ko def ba tey ji mu rëdd néegub yàlla kon nag nun taal bi nga xamante ni noo féete bitim réew xamoon li mu sëñ xaadim doon jëriñ xam li mu doon wax yéene nañ woote na néegub yàlla boo xamante ni kenn ku nekk foo mën a nekk ci adduna bi noo ngi fay séenu sa jëf noo ngi fay séenu sam xel noonu fay seenu sa lépp loo man nga def ko ci ndax xam nañu fanu seen xaadim féete woon xam nañu la mu defoon kon nag bu ko doomam wootee ñëpp war nañ fee teew jërë ngeen jëf jërëjëf alaaji Njaga Caam tubarkàlla ci kàddu yu Pastef yooyu waaye nag sëriñ Baara ba mu ne cëpp ci dëkk bi moo tànnaloon boppam barab bii ñii fi dëkkee nag yàlla sama borom dafa leen tawféex muy mbaasin jamono di dox ba mbàkke dugg ci mbassine serigne bara samp ko mu nak tund yaakaar don tund wo xamni ni faju ajalo kon ñi nga xamé ni ñoo dekké ci serigne bara tan am nañu tawfiq ñom nak la jébal kaddu ci sen tour serigne mbay awa kebe di chef de quartier bi mom la jébal mu wax ci turu tund yépp waaye wo kilifa administration bi nga xamé ni ñoo fi nek ak ñëpp tubarkalla serigne mbay bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bu nuyu sante yàlla bi ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi sant suñu jàmbaar bi Serigne Touba di ñaan Serigne Saliou yàgg suñu kanam ak njaboot bi di ñaan Serigne Mountakha Bassirou yàgg mi nga xam ne moo gàtt yoonu murit tey yàlla yàggal ko ci suñu kanam di ñaanal it sëñ Moustapha mi nga xam mooy suñu jëwriñ ci guy bind yàlla yàggal ko ci suñu kanam Euh, man nag damay soññee soññee bi may soññee mooy jëwriñ yi nga xam ne ñu ne ci tund wi Sénégal yépp laay waxal ndax bu ñu nee Sénégal ni région de Louga département Kébémer bàyyiwuñu kenn ak arrondissement yi kon nag murit yi ak taalibe yi ñoo ngi leen di woo ci bis bu rëy bii nga xam ni le trois mars le 3 avril la muy samp bu ñuy samp xeer bi di jumaa gi ci mbaasin ci Mbàkke kër Sëriñ képp koo xam ni teew nga fa yàlla yàlla faj sa aajo képp koo xam def nga fa soo ñaqit yàlla yàlla faj sa aajo murit yi nag lañu woo ak jullit yépp sëriñ bi nee na képp ku naan ashhadu an laa ilaha illa ñu ngi lay woo ci bis boobu di woo nag daayira yépp bàyyiwuñu benn daayira yi ku lim da nga juum doo matal waaye daayira yi nga xam ne ñoo wër département Kébémer ak biit commune Kébémer bàyyiwuñu ma sàmba bàyyiwuñu dem demba góor ak jigéen mag ak ci liggéey bi nga xam ne moom lañu sëriñ bi sant ñu liggéeyee ko na mu waree ci kàttanu yàlla mi nga xam ne jeexal dara yàlla na yeggale suñu sago jërë ngeen jëf jërë sëriñ Mbaye Awa Fall tubarkàlla ci kàddu yu rafet yooyu jébbal nag kàddu gi imaam oustaz Diagne sëriñ Saliou dey ku xam taxawaayam xam ni nekkul fi taalibe murid yi lislaam ji la fi nekkal mm-hmm. toog wuuf ñëpp am lanteeg ñëpp kóllëre bu rafet nga sëriñ Xaadim doon suuxat kon dañuy jël kàddu gi jébbal imam Oustaz Diagne mu wootee ci turu sëriñ bi wal ko kilifa diine yi nekk ci tund wi yëpp imam Oustaz Diagne rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit ci turu sëriñ saalihu moom sëriñ Xaadim Awa Ba ànd ak i rakkam ak i dëkkandoom ak i taalubeem ak am di jàmm di leen woo ci bis bu màgg bis bu tedd di néegu suñ borom subhaanahu wa taala wa anna al masajida lillahi fala tad'u maa allahi ahada woote bii nag woo na ñëpp bàyyiwul kenn waaye mi ngi ci bëgg a fësal ñi nga xamante ni ñoo ŋànk diine lislaam fii ci gox bi di département Kébémer région Louga région Thiès ak li nga xamante ni moo wër Kébémer ci ay kilifa diine bàyyiwul kenn lim nag dadul matale wante am na ñoo xamante ni bu leen tuddee rek kenn ku ne jombul dañ ci mën a gis sa bopp kon ñoo ngi fas yéene lim kilifa yi nga xamante ni moom lañ joto a jël ñu tudd leen ñu yóbbaale ñeneen ñi nga xamante ni jëlul ñu leen sëriñ bi woote bi lu ko ñor la bàyyiwul kenn ci kilifa diine yi képp ku ngeen déggu rek sa tur fii xamal ni ci ñun ñii la wante moom dafa waxoon nañu woo ñëpp ñu jiital kon ci woote bi sëriñ Abdul Akram Mbacke ca Kàbb Gay ca Kàbb Gay sëriñ Abo Mbacke ca Sagat sëriñ Abo Mbacke ca Njaaxa sëriñ Maam Baara Mbacke ca Tobbi sëriñ Xaadim Mbacke ca Mbumba sëriñ Jiili Mbacke ca Ndaar di le nak ab wote bo xamni wote bopam la ci shurafa yi nga xamanteni ño nek fi ci biir Kébémer ak ci département bi ak ci région bi ñu jital ci Chérif Ba Haydara ci gumba Chérif mohammed Fadal ci Kébémer Chérif Papa Haydara ci Kébémer Serigne Abdou Rahim job ci daru sam Serigne Fallou ndjay ci daru ndjay Serigne Modou Maram ndjay ca Daaru Ndiaye Serigne Cheikh Fall ca Daaru Fall Serigne Saari bu ca Masar Diop Serigne Alawa Gajaga ca Ndoob Gajaga Serigne Abdou Salam Jenn ca Ndand Serigne Abdou Gajaga ca Ndoob Gajaga sëriñ Modou Sey ca Ngéy Ngéy Serigne Omar Sey ca Ngéy Ngéy Serigne Cheikh Lo ca Bouchra Serigne Ahma Fall Serigne Ahma Fall ca Ndand Serigne Makhtar Seck ca Ngourane Serigne Talla Seck ca Thiénaba mm-hmm. Serigne Moustapha Diaw ca Ngumba Serigne Abdoulahi Diop ca Mirina Diop Serigne Baye Cheikh Ndiaye ci Jokkuli Jëwriñ euh, sëriñ Khadim Lo ca Berkom ñëwaat nag fii ci biir Kébémer ci ay dëkkandoom ay kilifa diine njabootu Serigne Ahmadou Diop ci Kébémer njabootu sëriñ Ahmadou Anta ci Kébémer njaboot sëriñ Ahmed Diop ci njëmbër jamaatu ibadu rahman jamiya aima wal ulama daaira tiijaan daaira xaadir ittihaadul watani ci Kébémer rabita madaarisul quran ci Kébémer di jaglewaat ab woote mboolem imaam yi nga xamante ni ñoo nekk fii ci biir Kébémer ak li ko wër jiital ci imaam Saalihu Fall imaam Gànji Caam ñu yóbbaale mboolem imaam yi nga xamante ni ñoo nekk fii ci tund kon daal woote baa ngi noonu sëriñ bi bàyyiwul kenn bëgg na bis ba daal kilifa yi moom bu leen fi kenn jiitu nañ teel a ñëw ndax dañ leen jox seen wàccuwaay di sàkkoo tam seen teewaay ak seen ñaan ndax liggéey bi sëñ bi nee na moog yéen yéen a ko bam sëñ bee tam mi ngi fàttali képp koo xamante ni yaa ngi ñëw ci bis bi xam na li nga xamante ni moo xew ci réew mi muy feebar boo xamante ni suñ borom moo ko fi wàcce ñu ñaan yàlla jële ko fi muy balaa bi di mbas mi yal yàlla jële na ko fi yàlla jële yàlla rek moo ko fi mën a jële wante am na loo xamante ni loolu la waa kër docteur yi digle li ñu wax mesure barrière ñu jiital ci képp kuy ñëw nag a takk sa masque ak mbooleem mesure barrière yi nga xamante ni ñoo ci topp kon daal di ñaan yàlla suñ borom subhanahu wa taala nga xamante ni lépp mi ngi ci loxoom bis ba ñu àgg ci ak jàmm te xeer wi jumaa ji itam bañ a taxaw li ñu wax nee nañu fukki weer lay doon ñu ñaan sax mu bañ a mat fukki weer <laughs> mu àgg ban koy woote waat di ko ubbi ci jàmm te lépp luñ fi julli yàlla na ko yàlla nangu wasalaamaaleykum wa rahmatullah ndi 10 heures lay doon waaye nag bu ñu ñëwee ba teqeer wi àndandoo ak sëriñ bi def nag cérémonie officielle kilifa diine yi toog kilifa aada yi toog mbokk taalibe yi ñépp toog ñu àndandoo waxtaani diine waxtaane lislaam nin ko xamee ci kër Serigne Saliou kon bu boobaa nag tubaat tubaarkàlla macha allah lii nga xamee ni mooy soxna yi di daare soxna Mame jaaro Bousso yi kenn mënu leen ci yoon wi li ci góor ñi di liggéey lu ko raw lañu ciy liggéey àndandoo boole seen bopp mu doon benn ñu jébal nag soxna Mame Marème Mbacké yàlla na yàgg di liggéey liggéey bu am solo kon ne xam na nag bésu tegu xeer yoonu murit nin ko baaxoo lu mu gàtt-gàtt mu ami bernde mm-hmm. bu ñu tegee xeer def cérémonie waxtaan ba noppi àndandoo nag ak sëriñ bi daal di xewlu bu ñu xewloo ba noppi sëriñ bi ñaanal mbooloo mi ñu mën a yebeeku waaye berne yooyee xewlu yooyee ku ne xam na ni sunu jigéen ñee ci man di nag daayira soxna maam jaara Bousso ci njiital soxna maam Marème mu jël kàddoon nag jébbal Adja Binta Ba di njiital daayira maam jaara bu mbaabu moom la ñuy jébbal kàddu gi mu soññi mbokki jigéen ñi waaye soññi waale mboole mu jigéen gu nekk ci Kébémer ak li ko wër yëpp soxna Binta ginnaaw bi ma sant yow. yëkkati kàddu yi ci Seydina Muhammad sallallahu wa yàgg ci lool te ànd hmm? bi ak ay rakkam. ñu yàgg ànd ak wér am ko taal bi di wax ci di wax ci tur sama jëriñ soxna Marème. daayira maam jaare ci Kébémer ak yu wër Kébémer ak juróom-ñett la. sëñ Saalum joxoon ñu ndigal nañ ko fédération daayira Maam Jaara bu boole daayira yëpp di yëkkateendoo di tegandoo mm-hmm. macha allah ñu ànd ko ak jigéen ñu am Pastef man maa nekk trésorière bi maa nekk coordinatrice bi soxna ma lañ lu ma lu ma wax lu muy wax man lu koy wax loo te lu ma ci wax jigéen ñi ñu def ci seen Pastef takku ci mel ni daayira Ndaxaar soxna Fatou Seye mooy jëwriñ Escale soxna May Mbacke Seck daayira Moussa bi soxna Fane Ndiaye ci des soxna moo ko jiite. daayira Liberté Adja Dior Dangoura suñu yaay am Pastef moom tamit ñu jàppale bu baax ci liggéey bi macha allah. daayira Gala Estat soxna xarit la moo ko jiite. daayira Njabi soxna Jabu Fall daayira Mbengeen Adja Cekk Mbeng moom tamit nekk jàmbaar euh, soxna jaaru daayira mbaabu caameen soxna mbooju caam moo ko jiite benn daayira la sax daayira euh, maam jaara njaay mbaabu ak daayira yi nekk ci Kébémer yëpp daayira xaaj yi maam jaara ñang moo ko jiite daayira gàtt kebe soxna maam Fatou Fall daayira tuubu njaar daayira Ndiaye soxna awloo ma ko jiite daayira Toubé soxna say Guèye moom tamit nekk jàmbaar macha allah mu ngi jógee ci fédération bi yàggul waaye ñu gis pastefam ak daayira yi nekk ci dëkk bi ak li ko wër yëpp hmm. ñuy soññ jigéen ñi ñëpp jigéen ñi daanaka sax ñëpp pare nañu bi ñu jotee ndigal rek lañ ñëpp pare woon man bés bu ne ñu ngi may woo di laaj ñu toll hmm. ñun ndigal rek la xaar ndigal rek la xaar ndigal ñu dégg jëfee di ñaan yàlla sëriñ Saliou ñaanal ñu ba li ñu sant ba def kawe njortam wak Cheikh Khady di ñaanal ñëpp di ñaanal soxna ku nekk fédération bi ñu ngi lay ñaanal fédération bi daayira Maam Jaara ñu ngi lay ñaan ngeen ñaanal ñu ba lu ñu sëñ sant rek ñu def ci suñu kéemtalaay kàttan ba def ci lu ñu mënul. daayira moom tamit Medina la dëkk ak soxna Sufi Kébé. Mhm. soxna Fatou Gueye. bu mhm. soobee. Mhm. di leen woo ñoom ñëpp ñu ñëw teel a taxaw bës bi ñu ne suba la ñu ñëw bis bés ba tamit ñu ñëw taxaw ci liggéey bi ba ñu def ko ñu ko sëriñ ñu bëggee jërë ngeen jëf képp ku ma tudd tamit xam ne sama xel moom fa tax binduma ko maa ngi tuub di jégaluwaat bu baax a baax di tuub di jël kàddu bi ci kanamu kilifa yi jërë ngeen jëf. jërëjëf Adja Binta Ba tubarkalla ci kaddu yoyu wo daayirey soxna mam jaara Bousso seyep waye mbollem jigen ju nek ci Kébémer tubarkalla don ci yoonu l'islam ñi ngi lay wo wote nak ci kaddu soxna mam mare Mbacké waye ci teewaayu tubarkalla soxna fal Mbacké suñu sang ñun ñep li di waral rëyaayoob liggéey bi jëf ju mag gi nga xamé ni Serigne salewé ngi koy jëf taxawal nag néegub yàlla taxawal juma ci tudd Serigne Khadim ci Mbàkke ci Kébémer balay su du jéggaani imam de ay daara la njëkk a samp alquran la njëkk a jàngale xam-xam la njëkk jàngale njëkke ko nag ci njabootu Serigne Khadim njëkke ko ci taalibe yi njëkke ko ci mbokk jullit fenn fu ci nekk fu ñu ca jële ci imam mën naa taxu bis bi kon mbokk jullit yi mbokki Kébémer bés baa ngoogu àndandoo tubaarkalla ak taalibe yëpp rawatina Bousso bi njabootu Serigne Omar Bousso ci Kébémer kenn du leen jiitu ci liggéey ba dellu di ko yëgal njabootu Serigne Madicke Seck yëpp waa Thiénaba bu ñu tuddee Serigne Talla ak Serigne Pam Moutada tubaarkàlla tudd nañ Thiénaba yëpp waaye njaboot Cheikh Ahmadou Jimbira ci Kébémer dëkkandoo woon ak Serigne Khadim ci dëkkin wu rafet ñoom tubaat tubaarkàlla ñu ngi leen di woo njabootu Cheikh Ibrahima ñaan njabootu Serigne Bara Niane ñu ngi woo ñëpp waaye mboolem daayira bu nekk ci Kébémer fédération Mawir Dul Zaman nekk ci Kébémer di demlante ak ñoom di dikkalante ak ñoom ñu ngi woo mboolem daayira daayira Tijaan daayira Xaadir bàyyiwuñu kenn ci njiital Serigne Modou Seck ñu ngi woo daayira yëpp kon mbooloo mi nañ ko weex woon Serigne Saliou diine la fi nekkal l'islam la fi nekkal taaf bi nga xamee ni jàpp ne bis bii di tegu xeex defal jumaa jii di nekk ci Kébémer ci quartier Mbassine ci Mbàkke barab bi Serigne Ba sampoon mu bëgg a ànd ak jullit yëpp kon képp ku dégg woote bi mooy sa carte invitation te xeer wi samedi lay doon fu 10 heures jotee mu bëgg kilifa yi taalibe yi mbokk Kébémer ak li ko war ñëpp ñëw àndandoo ak moom ci liggéey bii nga xamee ni tubarkàlla da ko sumb fas yéene ànd ak Kébémer ak mbokku jullit yëpp waaye nag mbokk yi biteel bu ne lam def la sañ bay xëy kii nga xamee ni mooy Serigne Khadim teel a jàngal njabootam teel a yar bàyyi koo bi Serigne Saliou yëggale yéen a joojee jàngal njaboot yi ñu wàcc alxuraan jàngal njaboot yi ba foo dem ci Kébémer ak li ko wër jumaa ju fa ne kuy jiite kuy imam ñu ni doomi Serigne Khadim loolu day la Serigne Khadim bëggoon mm-hmm. Serigne Saliou yëggale ko mm-hmm. waral nag képp ku ci jël kàddu bu waxee nga ni Serigne Khadim bu waxee nga ni Serigne Saliou tax la mu tànn rakkam doy loo ko lool rakam yii nga xamee ni boo ko séenee muy dem bul laaj ndigal sëriñ Saliou rek boo ko séenee muy dem bul laaj fu mu sampal alxuraan kër foofu lay wër dem ba dàkkantale ko borom daara yi ndax bëgg daa bëgg alxuraan bëgg a jàngale ba bu ëllëgee fu ko bi taxaw mën a mat imam mën a mat ustaas di sëriñ Moussaïn borom daara yi moom la ñuy jox kàddu gi mu ñëw nag woote ci turu magam ju baax jii di sëriñ Saliou sëriñ Moussaïn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 mbokki Sénégal ñoo ngi leen di nuyu gën ngaa seen nuyoo di yëkkati kàddu ndigal yoo xamee ni mi ngi tukkee ci suñu kilifa di suñu sëriñ di suñu jëwriñ muy sëriñ Saalihu Mbàkke ibnu sëriñ Xaadim Awa Ba ataala allahu amrahu wa ayyada allahu wa nasra mu jëlee ndigal ci kilifaam muy xalifa général de Mouride sëriñ Touba sëriñ Muntaxa yàlla fi yàlla yàggal te dëgëral ko ndigal li wàcc ci sëriñ mi nga xamee ne mooy jëwriñu Cheikh Mouhamadou Amine Bara Mbacké yàlla fi yàlla yàlla fi yàlla yàggal te ko mu wàcc nag ci Saliou Mbacké mi nga xamee ne mooy Awa mi nga xamee ne moo nekk fii ci nekk fi toog fi toogaa yëpp Touba ci département fii ci Mbacké nga xamee ni sëriñ Baara Mbacke Cheikh Mouhamadou Amine Baara Mbacke moo ko sanc ci ndigalal sëriñ Touba bi nga xam ne sëriñ Touba yebal na ko mu nekk sànna nekk fa ak sëñ sànna ba sëriñ bi joxaat ko ndigal mu ñëw fii ci Touba Kébémer fii ci Mbacke sanc ko ci 1912 nekkoon fii tamit di fi jàngale di fi yare di fi tërbiya ba jóge fi bàyyi fi njabootam sëriñ xaadim awa ba mi nga xamee ne euh, radiallahu taala anhu <coughs> moo fi nekkoon toogoon fi toogaayu sëriñ baara nekk fi di fi jàngale di fi yare di fi tërbiya di jariñe ci xam-xamam euh, di wane misaal ci ak njubam nga xamee ne fu mu sa toog fu ne toogal fa sëriñ tubaa waaye toogal fa lislaam bépp sëriñ Saliou bi nga xamee nag moo fi wuutu mooy woote lan lay woote néegub yàlla ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni al madaris qabla al masajid na ngeen jiital daara yi ci jàkke yi mu mel ne xadis boobu nag sëriñ Saalihu Mbàkke dégg na ko bu baax ndax tabax na ay daara yu bari yu limu tabax ay nit jàngal leen def ci ñoom xam-xam def ci ñoom ak njub jaar leen ci saata mustaqima ba tax na fu ñu soxlaa imaam dañuy jaar ci moom ba mu jugee ca loolu nag mu doog a woote nag néegub yàlla ya ayyuha alladina amanu stajibu lillahi wa li rasuli ida daakum lima yuhyikum yéen ñi nga xamee ne gëm ngeen yàlla gëm yonante bi na ngeen wuy ji woote bi yàlla woote bii nag woote bi yàlla la ndax wa anna al masajida lillahi fala tad'u allahi ahad kon nag sëriñ bi mi ngi woo jullit yëpp di woo taaliba yëpp di woo waa waa Sénégal yëpp rawatina ñi nga xamee ne ñoom la bokkal Serigne Touba eh, ci biir kër Serigne Touba ñu bokkal Cheikh Mouhamadul Amine Bara Mbacké te Serigne Moussa nekk ca bopp ba di woo nag waa région Louga bépp ak département Kébémer ak ñaari arrondissement yëpp sa sagat ak ndànd eh, rawatina ñi nga xamee ne ñoo dëkk département Kébémer bi Serigne bi leen woo ci tegu xeer jumaa ji nga xamee ni mi ngi ko bëgg a le 3 avril bii di ñëw muy samedi bii nga xamee ne moom lañ dërmal si yàlla ci yàlla yàlla àggale te dafa defal ci taw féex muy liggéey boo xamee ni ku ca seetaan da nga ñeetaan ndax kat lu baax lu baax rek la lu baax nag lum la jege jege jege jege jege boo ci deful dara doo ci am dara ndax wa an laysa li insaan illa ma saa wa an sa'yahu sawfa yura te suñu borom ne ci alxuraan fa may ya'mal mithqala dharratin khayran yara لو باخ كي جيف دول فيك ذره خال سن كو ان شاء الله ربي دايو النبي صلى الله عليه وسلم نينا اذا مات الانسان انقطع عمره الا من صلاه صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يده له آه جمعة في صدقه جاريه كون نك نيوم كي و طالب ييب دي تي و جوليت ييب دي تي و دكانو ييب دي تي و ام جام ييب ييب نيو تيوي tew xeer wi te kenn ku ne loo man te am ko nga def ko ca ngir yàlla ndax man amila saalihan fa li nafsihi kon sëriñ baa ngi wootee di soññee di soññ nag rawatina di woo euh, kilifa yu diine yi nga xamee ne ñoom la bokkal tund wi ñëpp te ñoom ñëpp imaam oustaz Diagne euh, lim leen ñoo ngi leen ci woo bis bi la samedi heure bi nekk 10 heures incha allahu rabbi a ngi ciy woo ñëpp wasalaatu wasalaam ala rasulillah. jërëjëf Serigne Moussa Ine ci kàddu yu matale yooyu yëkkati ko nag ci turu Serigne Saliou Magam xalifaam jëm ci bés bu mag bi nga xamee ni moom la ñuy waaj ñun ñëpp di tegu xeer jumaa fii ci kër Serigne Touba kër Cheikh Moulamine Bara yu Mbàkke ci Kébémer ñu jàpp bis bi nag samedi. le 3 avril ñu bëgg fu 10 heures jotee mu fekk fii ñëpp Serigne Saliou woo ñëpp Mbacke Balla jekk na dem tey doog a ñëw bëgg a jullit yëpp jàmm ànd nag ñoom ci liggéey bi nga xamee ni ku ci xas ba feeñ dootoo nëbbu moo waral mu woo ñëpp ñaqu boppam la ci jiital njaboot gi kenn ku ci nekk bay sa waar def ni moom taxawal nag néegub yàlla waral mbokku jullit yi Serigne Khadim Bey Kébémer la nekkoon lu mës a sumb moo Kébémer a ko ànd Serigne Saliou toog toogaayu Serigne Khadim lu ma dugg ànd ko Kébémer kon naam Sénégal kenn war liñ cee man région Louga kenn waral cee man waaye mbokk Kébémer ngir yàlla ndox bu ñu kenn man ndox bu ñu kenn man ñun la Serigne Bara tànn ñun la Serigne Bara bëggoon a xettali bëgg ñoo dimbali kun ba a dimbali nag da ngay dimbali si bopp ba bi kon liggéey baa ngi nii ci Mbàkke jumaa ji na ci ñëpp ñëw àndandoo ak Serigne Saliou sagub diine la sagub la sagub yoon wi la bu nëppee ñu àndandoo moom ni ko àndoon yoon jébbal nag caabi yi sëriñ Mountakha jébbal kàddu yi sëriñ Moustapha moom Cheikh Sidil Mokhtar mu doon sagub Kébémer doon sagub diine sagub lislaam kon mbokk yi woote bi daal tegu xeeru jumaa ji samedi lay doon fu 10 heures jotee fii ci pencum Serigne ci Mbàkke ci Kébémer ci njiital nag Serigne Saliou moom Serigne Khadim yàlla na yàgg <coughs> dellu di woo mbokku jullit yi di woo mbokku taalibe yépp di leen wax ni tegu xeer la ñuy def samedi le 3 képp koo xamee ni teew nga ci bés boobu samedi fu 10 heures jotee di tegu xeer képp ku ci teew yàlla nga teewaat ci ubbi tega yàlla nga teewaat àndandoo ak Serigne Saliou suñu sag suñu tiitër ñun ñëpp yàlla sama dëgëral ko may ko kartan ba naan lii nga xam ni su mun na ko yàlla sama borom taxaw ko ba mu yeggale ko ñu ànd julli ko ci jàmm bés bi samedi la fu 10 heures jotee la ñuy teg xeer bi nëppi def cérémonie officielle ci kanamu Serigne Saliou nëppi berndeel nag tubaarkàlla gan ñi àndandoo ko ak daayira soxna Maam Jaara Buso yi kon bés bango samedi lay doon ku ca teew yal na yàlla faj sa aajo ci barkeb Serigne Touba jël nag kàddu gi jébbal Serigne seen mi toogal Serigne Saliou ci jataay bi mu defal ñu ñaan ba samedi le 3 avril fu 10 heures jotee fii ci Mbàkke Kébémer بهما رد وليأخذ في الغارات ربي يا ما لم يجحدي الله كهنا لي بما يبقي لن شبيما غدا ولي قوتا بما قاد وخيه الرخدي هديات الله المعين ساخد لغيري اللاعين واليوم بالله يعين من شاء وفي غادي مدى لي له البشر بجاه سيد البشر وليا له ناشر لم أنه ما لم يفيدي